مكرما ضيفي جهرا كان أو سارا يا ماحيا عن خادي من خابل أو سارا mbokki jullit yi mbokki taalibe yi jot na ndigal ci xalifa sénéralu kullu murid Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na fi yàgg lool te wér wàcc fii ci kër Serigne Touba Cheikh Sonybu ci kilifteefu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ak mboolem njabootug Serigne Sonybu bu ngeen gisee jataay bi xam ne ñi ngi fas yéenee fàttaliku woote bis bi nga xam ne mooy bis bi leen boole ci sëriñ tubaa muy bis bi nga xam ne ci la Serigne bu Mbacké gane àdduna muy juróomi fan ci weeru koor. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyoo ci turu sëriñ bii Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ne mooy jëwriñi bu mu wax ne naa ko jottali ay kàddu. ci ndigal lu jóge ci magam di sëriñam di wasilaam diggam ak Cheikhul Xadim di as Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko gannaaw bi mu amee ndigalam yeesalaat bis ndigal ci bis bi nee na mi ngi koy ànd ak bokkam yi mu bokkal Sëriñ Tuubaa yëpp ak mboolem njabootu Mame Balla Aïssa gépp ak képp ku askanoo ci maaram ak njabootu sëñ Mor Anta gépp te buñ nee njabootu Maam Balaay sa ñëpp dugg nañ ci biir ak askanu Mbusoo bi gépp ak bokki Serigne Touba yëpp ak seexi Serigne tubaa yëpp di tàllal loxo mbooleem kilifa yi diine yi ci turuxu suufee yi ci Sénégal yëpp it ngir fàttali wala réew Serigne Chouaïbou bu amoon ak këri diine yëpp. di ko yëgal di leen wax na bis bi seen bis la kon nag bis la boo xam ne fàttali dafa baax rek waaye xam nañu ne bariwul ñu ko fàtte ndax cër bi ñu jox sëriñ Tuubaa dafa tax kenn ku ne ci doomi sëriñ bi taalibe yi ëmbal la yiw woo xam ne ak cofeel goo xam ne sëriñ bi rekk a tax jullit yi noonu ba tax na moom mii nga xam ne dafa féete woon Serigne Touba ci alquran liggéeyal ko ci lim ko ci liggéeyal bisam bii gis nañu ne nit ñi bàyyi nañ ko xel bu baax a baax. mu di ko fàttali nag ci tuuru mboolem ñi mu bokkal Serigne Souhaïbou bu rakkam yépp ak doomam yëpp ak taalibe kër gi yëpp di wax bokk yi ne bis bi seen bis la ñu ngi leen ciy séentu nañu ko daa defee it amul genn soppiku. juróomeelu fan ci weeru koor lay doon fii ci kër Serigne bu gii ci Daarul Xuddoos te Serigne Touba sancoon ko tudde ko Daaru Rahman kër gi ci boppam sëriñ Serigne bu nekkoon fii di jàngale di yare mi ngi leen ci séentu nañu ko daa defee yendoo jàng alxuraan durus xasida yi Serigne yi tudd yàlla jéggalu yàlla jublu ci santale yàlla Serigne Souhaïbou nu ñu sant ko ci Serigne Touba même nu won xiirtal nu ci ak jub a xam-xam akub yar ñaanal ko itam te ñaan ci barkeem loolu rek moo wundu màggal gi kon nag nee na mi ngi ko yëgal ñëpp di ci séntu ñëpp di ñaan it ñu egsi ci jàmm te mboolem luñ ci def ñu tase ci ngërmul Serigne Touba li des ci leeral gi abo mii nga xam ne moom laa teg lépp ci loxoom mu ànd ko ki bokkam euh, te mu coordonné lépp. waaye loolu tekkiwul ne euh, euh, dañ ko bàyyi boppam dañoo ne ci gannaawam di ko jàppale mu ànd koo ki bokkam fu mu toll ñu di ko bàyyi xel tollu fa moom waaye nag ndegam doy noonu te man na ko te li ma ko dénk lépp gisaguma dara lu ma ci naqari kon na ma ko dénk woon dénkawaat naa ko ko léppi màggal gi mi ngi ci loxoom. sëriñ bi nag mi ngi ciy woo bokk yëpp bokk yi nag buñ ko waxee sëriñ Tuubaa amul ay bokk waaye askan doomu aadama mun koo ñakk moo tax ñu ngi koy ñu ngi koy yëgal képp koo xam ne da ngaa askanoo ci libaas képp koo xam ne da ngaa askanoo ci mudasta képp koo xam ne da ngaa ci ñaxal bis bi sa bisa ndax xéewal gi Sëriñ Tuubaa def ci ëtt yooyu loolu jar na kenn ku nekk ci ñun ñëpp ñu dagg lépp lu ñu doon def ñëw fekk si bis boobu ndax loolu xéewalu ñëpp la waaye rawatina ñooñu ma tudd léegi alxuraan nag buy wax ne bis bu ñuy fàttaliku ka tax ñu koy dafa tax ndax xaasa sikkirun sikkir mooy lépp loo xam ne alxuraan ca la bokk lépp lu lu ñuy fàttaliku ca la bokk waaye nag sëriñ Sonia bu ku ne xam ne ne ci weeru koor lañuy ñuy woon jamono ci law demewaat àjjana kon nag am na la ca aaya ja tegal wey na lil muttaqiina la xusna maab xusna maab boobu nag kenn ku ne moom nga bëgg yàlla na ko yàlla defal ci bisam bii mi soññi ñi xam ne ñoo bokk ci day tundoo yi di leen fàttali itam liñ ci sëñ Cheikh say féetale ma yaakaar moo gën ci màggal gi mbaa boog ki ñu koy defal moo ko ci gën a alxuraan sëñ bi doon ba mu tàmbalee lan doo xam ni yéen tourné suñ son bi yéen laay féetale ñi ñuy jàng alxuraan yéen di leen toppatoo ñi fi nekk ñi fi nekkut tam tey jàng ñu leen di yëkkati seen wër rek di leen ko yóbbu at mu nekk bu ñu indee ma yëkkati dolli ko ba mat ñu séddale ko ñi nga xam ne ñoo ne ci àll bi. loolu nag laa yaakaar ne moo gën ci màggal gi mbaa boog mu gënal kii ñu defal ci màggal gi kon nag maa ngi ci soññ bu baax a baax a baax a baax ñu ñun bokkal daayira bi ñëpp kenn ku def ci li nga mën ak li nga mënut. ñu ngi yëkkati kaddu ci turu suñuy kilifa yi nga xamante ne bi ñooy seex yi aju ci kër Serigne bu te sëriñ Mountakha Sylla ak sëriñ Balla Sylla ak sëriñ Abdoulahi Diouf nekk ca bopp ba ak ñi topp seen ginnaaw te mbooloo topp leen dañoo wax ne ñu ngi soññi seen bopp di jox ndigal képp koo xamante ni kii aju nga ci ñoom ngay góor ngay jigéen ñu tàmbulee waajal bisub sëriñ Soy bu tàmbuli liggéey bi muy njàngum alxaan mu bari te sell ak durus xasaay it mu gën a bari te sell bu loolu lépp jàllee it ngi ñaan àgg ca bis ba te fekkee ko te tal ko waaye ñu ngi jox ndigal buñ ca àggee itam képp ko aju ci ñoom na jiitu ci kër gi mën a dalal gan ñi bu màggal gi jàllee nanga des ci kër gi ngir rafetal li nga xamante ne bii moo doon ginnaaw màggal gi. ñi ngi ci soññi mbooleem fu waay mën a nekk ci kaw suuf te doon jàngalekatub alquran waaye di ko jaare nag ci kilifteefu rabitatul madarisul quraniya fi Sénégal muy Cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne Mouhamadul Fadilu ak Cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne Habibu ñu koy jaare ci ñoom. di ko jot li mbooleem njaboot gi di sàkku ci ñoom fu ñu mën a nekk luñ mën ci jàng alxuraan ngir delloo ko njukkal jàmbaar ji nga xam ne kenn la ci seen biir nga xam ne seen kilifa la ci yoon wi di seen royukaay ci ay taxawaay mi am solo nga xam ne daara yu baree bari boo ca demee méthode ya nga fekk ñu di ko jàngalee alxuraan tam doon yoon yu gaaw fii la bàyyi ko ci ëtt bi. ñu ngi koy fàttali mbooleem xeeti daaray kaamil yi nga xam ne ñooñu sax mooy ñi ñu waroon a jiital daaray kaamil Serigne tuubaa yi nga xam ne fépp fu taalub Serigne Touba nekk saxal nañ ko fa tàmbalee ko ci daaray kaamili Touba ak Njaareem Daarul Moxti ak Daaru Salaam ak yeneen barab yi nga xam ne taxawal nañ ko fa ñu ngi leen di fàttali bisub Serigne bu bi nga xam ne juróomi fan la ci weeru koor ku ko mën nag nga tàmbali say kaamil ba lañ caa àgg ndax su boobaa la limba di gën a fulu lu mu gën a selle gën ci ndax nit la koo xam ne jàpp nañ ne luñ ko mën a defalit yéen ñi nga xam ne yéen yëngu ci wàll googu dana leen bàyyi xel te delloo ko njukkal war na leen te lu ngeen ci lu ngeen ko ci defalit dana ko gis. fàttali rek loo xam ne wóor nañu ne kenn fàttaliwu ko kenn fàttewu ko muy bis bi nga xamee ne ñun sotti sëriñ Souhaïbou bi nañ koy faral di amal ci buñ ne gannaaw suba la màggal gi muy conférence bi ñu amal fii ci pencum sëriñ Souhaïbou at mu nekkit ñu baaxoo ko dara jaale kenn ci njabootu sëriñ Tuubaa gi eh, ren jii ñu dara jaale ko suñu maam soxna Fatimatu Mbàkke eh, ñu koy wax soxna Faati ngal bintu Seexul Xadim ñu di ko fàttali mboolem ñi ñu bokkal Serigne Touba di ko yëgal it mboolem ñi ñu bokkal maaram fu ñu mën a nekk ak mboolem taalibe Serigne Touba yëpp. di yëkkati suñuy kàddu ci ndigalu lu Serigne Abdou Samad mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne bi di jëwriñu liggéey bi noonu ma ko wax rek ci woote bi nga xam ne woote na ko ci turu Serigne bi ci bis bi nga xam ne mooy bis sunu sang bu tëdd ba de Cheikh Abou Madane Chouaïbou kon ndigal li nga xam ne jox nañu ko ci yaatal woote bi ak soññ ci mbokki taalibe bi nga xam ne lépp lu aju ci liggéey màggal gi ak la ak la koy doxal ñoom la ko sëñ bi teg seen loxo di jiital jégal bi nag ki nga xam ne mooy kilifa réew mi di président de la république suñ baa ko yëgal ak mboolem membre gouvernement bi yëpp ak mboolem ñi koy jàppale ñëpp di ko yëgal mboolem kuréel yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi di yëngatu ci ci fànn googu ñu ñëpp sëriñ baa ngi leen ko yëgal ndax moom bis ñëpp la kon sëriñ baa ngi leen ko baax a baax di soññ nag bu baax a baax mboolem daayira yi nga xam ne aju aju nañ ci kër sëriñ bi yëpp fédération yi nga xam ne aju nañ ci bi yëpp nga ne bu ñu wax bu ñu wax màggal ñoo tax ndax lépp lu fi ab liggéey wala taxawaay lépp ñoo ñoo ko ñoo koy def kon nañ ko nañ ko dañ ko daan defee sëriñ bi nag mu leen soññi ñoom ñëpp ñu maas takku taxaw temm taxawaay ba ñu war a taxawee ba màggal gi ne ko sëriñ bëggee te diglee ko noonu te mooy gan gi fi ñëw ñu teeru la dalal la teral la loolu ñu ngi soñ soññi daayira yëpp bi ci beral ab soññee nag daayira turandoo sëriñ Souhaïbou bi waaye di ci beral ab soññit fédération soppee sëriñ bi nga xam ne sëriñ Abou Mbacke Darou Salaam moo ko jiite di soñ di soññ mboolem daayira yi nga xam ne aju nañ ci kër gi yëpp yëpp rek ba ci nekk bitim réew fa nekk ci bitum réew sëñ baa ko yëgal di leen soññ bu baax a baax di gën a soññ bu baax a baax ni ma ko wax léegi rek jëmmi comité comité bi nga xam ne nag ñoom ñoo ñooy saytu liggéey bi nga xam ne bu xasee def appel bi ci tur sëñ bi fii ba bu màggal ga ay bus gën a fii la ñu daje ci kër gi di waxtaane màggal gi ak di ko waajal loolu yi nañ ko daan defe sëñ sëñ bi jox na ci ndigal kon ñu ngi soññi képp koo xam ne bokkoon nga ci comité d'organisation bi ak commission boo ci mën a bokk nga xam ne sa liggéey bis nekk ji tàmbali na incha allah nañ ko daan defee ajjuma ju ne danañ daje fii ci kër gi loolu duñ ko dakkal màggali as yi programme bi nag moom amul genn soppeeku ne ko ñëpp xame woon rek incha allah màggal gi màggalu bëccëg la bu ñu xëyee suba ni ko sëñ bi léegi danañ xëy njàng ma ak xasida mi loolu la ñuy yendoo ba waxtu bi tisbaar tisbaar jot bu ñu sërmalee tisbaar it am na waxtaan ñu fa ñu fa baaxoo def foo xam ne ab conférence lay doon am jot dañ tànn benn borom xam-xam diggante tisbaar ba takkusaan penc ma loolu dana fa am incha allah bu ñu sërmalee takkusaan nag am na waxtaan ñu muñ baaxoo def ci penc mi muy cérémonie ba incha allah ci njiital sëriñ bi ak mbokk yëpp loolu it amul genn coppeeku incha allah Mm, diggante takkusaan ak timis nam naan amee noonu lay amee kon moom it ñu ngi koy bàyyiloo xel mbokk yëpp ak mbokki taalib yëpp buñ ci jógeen incha allah sëñ bi yeewi taalib yi yeewi mbokk yi ñu barndeel leen incha allah ñu waaja waajaat ko déwén kon ci gàttal kàddu yooyu mooy mooy yi ñu doon yëkkati ci turu sëriñ bi di ñaan sunu ba mu defal ñu tax feex bu ñu àgg ci ak jàmm te ni ko sëriñ ni ko kilifa yi bëgg sëriñ bi bëgg ko noonu suñu boom defal ñu kàttan ba man koo matale noonu te ñu ñëpp ñu maas làq ci seen gërëm jërë a jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nalaaka bil barri ba dal baari xaadimukum wal yowma xutalahu bilahi